yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi. asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi murit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di ziare waa daayira bi xam ne ñoo nekkal sëriñ bi fii ci jumaa ji yor liggéey bu tedd bu màgg bii nekkal fa sëriñ bi nekkal leen fu murit yëpp. ñu leen di ñaanal bu baax a baax lii ñuy liggéey sëriñ bi yàlla nañ ci am ngërëmal sëriñ bi ñu yàgg ko ànd ay at yu bari te lépp ñu daje ci ngërëmal sëriñ bi ci barke sëriñ bi lii nag ay barkeelu la lu yu fondation sëriñ tubaa Social USA ci njiital soxna Ramatoulahi juuf ñu yónnee woon ko ngir euh, barkeelu ci liggéey bi ngeen di liggéey sëriñ bi ngir mën a bokk ci tuyaaba ci ñu xeeb ko lool nag mu nekk ay xeetu tàndarma ak chocolat may ne suukar di ñaan lii nga xam ne ñu ngi ko ànd di ko liggéeyal sëñ bi yàlla nañ ci bokk waxtu wane di ci dajee ngërëmal sëñ bi te ñu yàgg koo liggéeyal sëñ bi te gën a jekku liggéeyal sëñ bi ci barke Cheikh Khadim ñoom nag ñoo ñu yéene woon ngir ñu jotal seen barkelu ci liggéey bi sell bi ngeen liggéey sëriñ bi. salaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu ñu ngi leen nuyu ci turu daayira Madou Xidma ñi si ñaar sa imaam ak mboolem ñu ànd liggéey bi ñëpp. teg loxo nuyoo bi nga xam ne si Moussa Amar ak ñi àndal ñëw nañ fi ci turu fondation sociale bii nga xam ne ñaan ñoom di liggéeyal yàlla ci baax yu mel nii tey nga ñu fi jumaay ji àndam xam ne ci liggéey bi kon si Moussa ñu ngi leen jot am nuyoo sonarama ak moo ñu ànd liggéey bi ñëpp rek di ko xam ne liggéey bi agsi na noo ngi ñaan yàlla mi tax mu di ko jëf ba lépp loo xam ne suñu borom dégg ne ko ci képp koo xam ni dogal na aji woo doon benn tàndarma la yool ba mu ko ci dig mu war ko ca am ci yàq ca du yàq dara ci yool bu kooko kon na ñu ngi ñaan yàlla ko ci ca suñu borom yokk xewal gi ak wér gi ba lépp loo xam ne yéen na ko liggéeyal mu def ko di koy jot parce que suñu Tuubaa ñu ko te addi addi bëri bak suñu Tuubaa jërë ngeen jëf yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد